wax fàttali nga ko sànq ci problème boo xam ne amoon nga ko ak waa ARTP nga xam ne gis nañ ne ñoom ñoo ko fi ñële nga ñëwaat tey mu nekkaat problème boo xam ne nga jëm ci wàllu Sonatel ak waa Orange ci boobu est-ce que dañu mën a jàpp ne euh, Walf moo nekk au centre de la cible wala fu rek mooy yuuxu wala nag nga mën a leerale nit ñi coow li. waaw effectivement euh, may sababu expliqué na ko léegi at mi bi mooy deuxième fois bi njëkkoon a commencé ARTP la. fekk ñun ñoo déposé suñ bopp li ñuy wax concordat concordat mesure préventif la sur le plan comptable ñun ñoo tànn ne ñiñ ameel bor yépp ñi ngi nii gannaaw buñ defalee suñ bopp audit jël euh, cabinet boo xam ne bu ñépp xam la ci wàllu audit mu ñëw jël fii suñ yépp ñu jël loolu jox ko juge bi jël suñ plan jël yépp ne ko nag ARTP am na lu ñuy clamé dañoo bañoon rek ku ñu jaaree gannaaw te lii ñun d'accord ci dañoo bëgg nag ku ñu ameel borkaay juge bi ñu am lu ñu tëral ak yéen pour ñu bañ nekk ci bëre di dem ak a ñëw ARTP di ñu laaj cinq cent millions président ci boppam Macky Sall moo ko doon suivral boppam yónni ñaari ministre am mooy Euh, Mbagnick Ndiaye ak Yaaxam ñu yendoog ñoom ak directeur yi ARTP benn question rek laa ko posé ndax mos nañ leen a laaj fréquence yi ngeen wax ne yu télévision yi Walfadjri ñu ngi à travers le pays wala ndax mos ngeen ñu ko jox wala ndax mos ñu ko utiliser bu ngeen ci waxee benn rek bu ngeen ne yéen a ko laajoon rek ñu fay bu ngeen ni yónneewoon nañ leen ne jox nañ leen ko ñu fay bu ngeen ne mës ngeen koo utiliser même waaye laaju leen ko ñu fay directeur bi dem fanaan ak ay gaayam delsi ne moom de ministre ma ko ko waxoon ñu ne ko ministre bi toog naa waxtaan ak moom ci projet waaye taxul ma def demande ne naa ko bugg naa nangam banque ba wax naa ko projet ne ko bugg naa suñ ca yeggee nga lebal ma banque bi sax dem naa ba bind ba mu ne ma teg naa ci sa disposition temps banque bi moo tax bi ma soxlawaatee leneen ma ne ko la ma la naroon a la ma naroon a fayee la ma naroon a defee yeneen télévision nga xam ne région bu nekk danaa fa am station régionale je préfère ma fayee ko satellite bi puisque satellite bi itam sénégalais yaa ngi koy seetaan ci biti même bu ma ci amul dara naa ko fayee foofa di daw loolu lu ma ko fayee banque bi def ko fii nag soxlawu moon pour ne annuler leen ndax demandé wu moon ñoom ñu dem jël secrétaire général bi ne ki nekkoon ci ministère bi doon lijjanti loolu moo fi nekk ba léegi kon këyit googu dana feeñ nañ yendu ma ne leen abal leen ma mat la nañ fanaan ñu nekk fa ba ngoon génnewuñ ko président mujj na wax ci présidence Jules Diop génne ko ci euh, internet am ne président dafa ne bu ma nekkoon place wal Walfadjri ni mu agiré laa agiré luñ ma mos a jox mosuma koo jot nu ma koy fayee muy ARTP nga xam ne bon lañ namoon mooy soo duggee ci concordat nañ la fayeeku loo xam ne suñ la ko attaalelee dootoo ko mën a fay di fay say kii su ko defee nga daanu mooy yoon wi la gën a daaneel yii yëpp il nga xam gestion xam ki la bugg a daaneel fan la lay jaar su ko defee looloo tax ñu mesures yu bëri dañ koy jël à ci biir concordat boobu nag lañ ñëw ne Sonatel luñ la ameel mu ne région yi li ma leen defal muy jël seeni antenne ñu nekk fa loolu yëpp buñ ko calculer tey ameel ngeen ma cent quarante quatre millions xam ngeen ne région yi loolu duñu jural dix millions juraluñu dara dañ ko def rek pour population bi am fu ñu mën a exprimer wu lañ fa defoon nag moo doon serveur yi soo ca wootee cent quarante et un multiplié par nangam dañ koy jot dugal ko fii rek génnee ko fii ndax échange de chèque mooy am mënuñoo def compense comptabilité ko nanguwul ci biir loolu ñu wax ñu ko daal di xëy rek daal di dagg yooyu mooy da danañ leen fayeeku mais source ba dañ ko dañ ko dagg su ko defee da ngeen amee dépense mais dootu leen am recette te xam nañu règle bi recette ak dépense la ba tey mu metti ñu ne waaye dakaar gannaaw am na serveur baax na ñu ne leen lu ngeen wax ci 144 bi li ñuy wax ñun buñ ko paree ak ñoom dañ koy jël déposé ju ko ci juge bi xam nga boo amutoon juge amul dara ñun ñooy wax ak ñoom ci néeg rek mu génn nga wax ñoom ñi bind jox seen conseil juridique mu bind lépp ne ñu tout de suite da ngeen di joxe vingt cinq millions chaque fin di mois ngeen joxe quatre million ñu jël loolu yenn ko ñëw jox ko juge bi juge bi ba léegi génneegul nu mu tootee bi àtte na d'accord nañ ne ñun liñ ko woon yëpp c'est sérieux war nañoo mën a am concordat waaye nag décision bi génnagul malgré tout dem nañ fay leen jox leen vingt cinq millions fay juillet fay août fay septembre ñu toog ba septembre soxlawaat suñuy recette lañ fay amee ci serveur yi ñu ne duñ leen ko jox li may wax yépp lettre yaa ngi nii lu ci nekk mun naa leen jox échange bi du loo xam ne ay wax la ku ci soxla dara journaliste bu mu mën di doon bu ñëwee fii suñ comptabilité ñu jox ko échange bi ñu def amu ci dara lu nëbbu ma bind directeur bi ne ko li nga def c'est pas légal c'est pas comptable c'est pas correct bu ci nekk ak la muy signifié nan nga mun a arrêter li nga xam ne ñun ñoo koy jot yow contrat moo ñu amee même boo buggee attaquer sax lu ñu la war a def am nga yenn ni moyen ndax yaa ngi amee sa contrat mu ne wéy danaa ne ko teggil bii yoon malgré que bii yoon sax la wax waaye toppuñ ko ca wax jooju dinaa leen ko jox léegi ngeen liir ko gis ko bu ci nekk ndax yéen ñi fi toog ku nekk ci yéen ci domaine boobu lay liir waruñ koo wax rek di ko bàyyi muy dem ba léegi jotuñ ca dërëm ba léegi ñu ñu nga séquestré suñu xaalis plus de cinquante million ñoom ñu ngi ñu ko ameel plus de cinquante million actuellement ñoom ñu ngi ñu ko ameel te ñun ci période bi bu ñu waxoon li ñu leen ameel paasewul dix million ba pare nag ñuy yuuxu fu nekk naan da ngeen a amee bor ñoom ñoo ñu ameel bor ndax ñoom ñoo séquestré ñoo amewuñ bor dañoo sekestre suñu xaalis ne duñ leen ko fay léegi nag ñun yooyu yëpp noppiwaale nañ ko puisque loo wax rek nit ñi dañuy defe ne problème de gestion la da nga kii tey yaa ngay wax ak ARTP ëllëg yaa ngay wax ak Sonatel gannaaw yi ëllëg yaa ngay wax ak keneen dafay mel ni koo xam ne daal coow yi daf laa neex ñu noppiwaale ko léegi nag fa ñu daanoo mooy nag yegg si ca fuñ bëggoon mooy wax sa xalaat bu mu fi amati suñ ko commencé ak Walfadjri nag dana law ci yeneen xëy na bu boobaa serveur yii def ay gisaane dañ ko arrêté serveur yi nga xam ne dañuy génne beneen façon ngi waxtaan yoo xam ne yëpp waxtaanu euh, penc la dañ ko arrêté waaye yi nga xam ne nag dañ dugg ci certains problème sensible yooyu moom bu boobaa buñ ci bugg a arrêté rek dañ ko daal di arrêté ndax xas nañ ko def fenn donc point bu njëkk bi loolu laa bëggoon pour xaalis yi ñuy wax ak gestion yeeg bor yi ñu xam ne Walfadjri su amee ay bor te amee na ay bor ñaar ñoo ko ko teg benn bu njëkk bi mooy antenne yi ñu def dans les régions di ko fay Sonatel te rapporté lu ñu dara waaye mënuñ koo ñàkk def puisque il y a public boo xam ne li ñuy def intéressé na ko te ñun mënuñ koo ñàkk a servir à domicile loolu nag jàppal ne huit la fi mu ne nii quatre yële laa la wax ñoo ànd ak station waaye fu mel ni Ziguinchor fu mel ni Tamba fu mel ni maatam fu mel ni Diourbel àndul ak station dañ koo def rek di ko jox nit ñi pour ñu jot ko ba pare nag ñun ñu ngi fay colocalisation sans compter nag matériel ba fa nekk ak yeneen ak personnel ba fa nekk ak yu mel noonu donc muy benn muy benn ci li nga xam ne ci li ñuy néewal doole la ndax dépense la bu àndul ak recette te nag nous sommes commercial deuxième bi mooy satellite boobu ñu ñu jëloon donc ko servir diaspora bi pendant très longtemps te juruñu jéem noonu nañ def carte jaay mu jigi contrefaçon dugg ñu daanu ci ba léegi télécom France mi ñu ci topp ak yeneen ak yeneen jaay doole yi ñu jóge bitim réew ñëw daaneel ñu fayekuñu lu ñu warta fay ca World Space ay italiens yu ñu doon liggéeyal plus de deux cent millions ñu jëloon matériel yu ñu kii jàpp waa ji justice bàyyi ko fa mënum ko bàyyee su ko defee ñun ba léegi ñoo ñu ngi leen di réclamer plus de cinquante million il y a yoo xam ne pare nañ ko wax publiquement suñ gestion leer na nañ yooyu nag mooy yi nga xam ne moo ñu topp ñun nag souci bi ñu am mooy réew mi nga xam ne bëgg nañ koo tabax te war koo tabax ci démocratie war koo tabax ci liberté de ton comme ñi ko ñeen waxee lii nekk ci ñun un combat depuis bi ñuy xale ñi ciy dugg euh, université fu nekk ànd ak waa gauche bi ànd ak waa lislaam yi bépp idéologie boo xam ne rek combat am en tout cas bokk na ci libérer nit développer pays pare nañ cee bokk na tudd nu mu di tudd depuis bi ñuy xale ba léegi utuñ ne bii communiste la utuñ ne bii nangam la ay nit la ñuy ut rek yoo xam ne pare nañoo xeex ak lu dul dëgg loolu moo ñuy indi tey ci communication kon comme ne ko Amady Mokhtar Mbow waxee ci sama préface bi préface bi ma préfacé sama livre mun a je suis rentré dans dans dans les dans la presse comme on rentre dans la religion pour man sacerdoce la sénégalais yu bëri dans leur combat comme ni ko Omar Faye waxee comme yéen ni ngeen koy defee dans seen liggéey di seet lan moo jub ak lan moo jubul côté sacerdotal bi moo tax la côté éthique moo tax ñu ciy sonn waaye bu fekkoon ku nekk ci ñun intellectuel nga war ngaa mun a séddu war ngaa mun a nekk li ko noonu da ngay dem rek di xëy di di wàcc di ut looloo nuñ koy lonkee teg waaye nag am nga beneen devoir boo xam ne moom moo ci nekk kon pour pour ma résumer daal euh, problème bi tey li tax ñu indi ko ci penc mi mooy feeg leerul une clé de répartition de la publicité feeg leerul de terme de référence clairs feeg ay préalable amul li ñuy wax dialogue du dëgg dialogue mënta nekk politique un dialogue dafay nekk national daf koy nekk ci entreprise yi nekk ko ci société bi nekk ko ci justice bi nekk ko ci tous les secteurs bu boobaa la politique yi di daje dafay dañuy entériner rek lu lu am ba pare waaye nag loolu mooy loi yu leer terme yu leer loolu Europe ba muy avancé ci dix-huitième siècle moom la jël débattre ko teg ko ay Montesquieu ak ñeneen ak ñeneen xalaat liñ xalaat ci éthique moo ëpp liñ xalaat ci loi technique ba éthique baa ko ëpp doole fuuf bañ mel ni ay waaraatekat ak ñeneen ak ñeneen ñun itam foofu lañu ñu toll il faut ñu wax lu jaadu ak lu jaaduwul pouvoirisme il faut mu jeex fi fooyee nu mu tëti ab kii étrangère bu ñëw di tibb ci di ci géej gi lu luñ téléphone mu jël mbedd muñ teg moom moo koy raax mooy def lépp ba pare la ca nekk mu jël fu ci nekk li ñuy jox yépp nag nekk loo xam ne ba pare nag naan ñu am ngeen indépendance ñu ne ñong taraan depuis ba ñu amee indépendance ana eh, kañ la indépendance boobu du jeex ndax ñu delluwaat ci colonialisme question boobu moo jar a